làmb ji bër na ci jamono ji waaye li ñu jàpp rek mooy ñu ngi dund ay naxar ak i tamit ay jafe-jafe jafe-jafe bi bokk na ci li nga xam ne mooy yenn combat yi nga xam ne waroon na am te mujj te am ndax coronavirus waaye tamit. ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ancienne gloire maanaam suñu papa yi suñu maam ya fi nekkoon doon bëre ñu ngi dund ay jafe-jafe gannaaw ndem si yàlla mbay Guèye ndem si yàlla ki nga xam moom mooy booy Bambara ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam dëddu nañu àdduna di ñaan suñu borom xare leen aljana am na yeneen i ancienne gloire yoo xam ñu ngi tëdd ci lal ànd ak tawat gu méttee métti benn bi di Mohamed Ali muy le grand champion boxeur écurie Walo fi mu nekk nii feebar na. te mi ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ci wàllu wér-gu-yaramam war nañ ko mën a taxawu bu baax a baax a baax ci taxawu boobu rek moom Mohamed Ali feebaram gi ma nga tàmbali ci atum 2011 waaye 2018 la ko commencé sonal loolu 2019 mu def opération ci biir bi waaye mu mel ni ki opération bi dafa rate ba muy takk ceinture ci biir bi waaye tamit bu ñu xoolee ci image yi nga xam ne ci benn émission la tànk yi ma nga néewi sadd lool kon fi mu nekk nii sonn na te mi ngi sàkku rek ñu taxawu ko ci nu mu gën a teelee ndax ci ay kàddoom la mu wax rek mooy nit bu soxlawee ndimbal ci ba muy dund toll ci ay jafe-jafe lañ ko war a taxawu waaye fi mu nekk nii. li ñu mën a wax rek ci làmb ji mooy ñi nga xamante ni ñoo tax ba làmb ji agsi fii ñoo saxal suñu culture suñu sport national war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ministère des sport ak nguur gi mu nekk benn statut spécial boo xam ni sax dañ leen koy jagleel waaye tamit doon nañ ko wax fan yi ñu génn rek euh, ci dëjub mbay gay bi yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana est-ce que tey du am benn mutuelle boo xamante ni war nañ ko mën a taxawal mbër yi nga xamante ni ñoo fi nekk ancienne gloire ak mbër yi fi nekk ñu fexe ba lu ni mel ñu daal di koy jëmmal ndaxte fi mu nekk nii lu jàmp la ndaxte mbër yi ñu ngi dund yenn jafe-jafe yi am na ñu ko ciy dund am na ñoo xam ne moom fa tabaarakallaahu macha allah léegi nag li des si nguur ministère de la euh, ministère de sport ak i tamit ñoom mbër yi ci boppam muy ancienne gloire yi ak ñi fi nekk bay waaj a bàyyi sax ñu xool ñoom na naka la ñuy taxawoo mbër yi nga xamante ñoo fi nekk muy mbër bu ndaw ba ci mag ba ci ancienne gloire ñu mën a jàppalante wala mutuel boobu daal di taxaw ndaxte déggoon nañ ko ca jamonoy maître Abdoulaye Wade waaye fi mu nekk nii. mbir moomu daal dafa mel ni ki rek la ñu diggee woon ci arène nationale bi. waaye ñuy dundee yaakaar ne war naa mën a taxaw waaye daal kii nga xam ne moom mooy Mohamed Ali jamono ji feebar na ba biir bi daf ko takk ba rawatina tànk yi dafa neewi kon wàllu googu nga xamante ni ma ngi koy sàkk ngir ñu euh, dimbali ko donte am na ñeneen ñu koy dimbali waaye tamit yoon la mu daal di sàkku ndimbal ci ñeneen ngir mën a faju daal di wér kon jamono ji daal laaj bi ak wax ji mooy mutuelle boobu noonu mbër yi fan lañ ci tool est-ce que warul ne nekk xeexu ñoom ñëpp nga xam ne ku ci nekk diñ ci gis sa bopp.